ayca tey euh, ma ma jàkkaarloo ak sama xarit euh, sëñ Bada sëñ Bada nuyu naa la. Euh, mbay Kouthia maa ngi fay sama xarit. Mm-hmm. naka yi tey di leen nuyu di nuyu sénégalais yi di nuyu diaspora bi àdduna bi mboole ñu may suivre ci internet bu baax a baax. Mm-hmm. ayca xam naa ni Sénégal day day day football tey day football tey day football suba incha allah si lënd bi. Mm-hmm. sëñ Bada. mu mu yeewu tey nekk ci ay conditions yu bon rek. waaw nekk si mu nekk si ay conditions ñu nekk tey si ay conditions yu bon a bon a bon. Mm-hmm. supporters yi. Mm-hmm. waaw gis ñu gis vidéo yoo xamante ne vidéo euh, supporters yi ñu ngi génn ne fi leen loger baaxul ñi naan li ñuy lekk baaxul ay su ay kii lañuy lekk euh, tiktokeur yi tamit am am na ñuy nekk Sénégal di kaas naan ñi leen dañoo gënalante. parce que am na ñoo xamante ne fii lañ leen. bàyyi kumba am ndey la kumba amul ndey dangay jaar ci digg bi. mbay li li fi am ak la xew Côte d'Ivoire dara ump la ci parce que su suñuy frère ñoo fa nekk. suñuy sœur ñoo fa nekk. ñenn ñi sonn nan ah, ñii feebar nan amuñ fu ñu waxee xamuñu fu ñuy waxee parce que ñemewuñu wax te dëkku jàmbur nan nekk. man lii sama problème mooy su le maradi boobu man dëgg rek laay wax. kenn seexalu ma lem. président Macky sal ku mm. baax la moom la ñuy topp waaye nag buy fal ay nit dafa war a xool le place kii faut l'homme qu'il faut à sa place kuy lijjanti ay mbirum lonaas ak yooyu kenn waru koo jox mbirum football lan waxante dëgg parce que mbirum lonaas ay mbirum xaalis ak rek la yooyu du mbirum football Lat Diop ba mu fi toogee ba léegi lan la def def fi dara mbay nan waxante dëgg nan ko wax ca kaw mu ñu dëgg rek yow ñu ay sénégalais lan mbir mi ñëpp ci war a gis seen bopp mais munoo fee jëlee tey jii. ñu ne Sénégal mooy football équipe nationale équipe nationale ñëpp a ngi ci. mbooleem lépp rek tëggkatu sabar yeeg mbër yeeg joueur yeeg sëriñ seeg ñëpp a ci parce que c'est Sénégal qui gagne ñëpp a ngi ci. donc santul nenn santul pouvoir santul opposition bu ñu demee bay yóbbu sax da gis ne yóbbu bi sax dafay def ay day doon ay sélection ñi ñuy yóbbu ak ñi dul yóbbu ak ñi yooyu yëpp mais yooyu garaawut doon yóbbu ku leen neex yaa may dégg mais problème boo nit bakkan nga yóbbu. kooku nga respecté ko war koo teg ci bon condition mais ñu mënuñu comprendre ay bouse këccëg ay fadam toog yor seen plateau omelette yu baax di xëy di ndekki hôtel yu baax dalwaay yu baax yaa may dégg te gars yi ay doomu sénégalais doomu réew mi ah ku leen gënul gënuñu leen yaa may dégg ñu dugal leen ci ay néeg néeg yoo xam ne amul volontaire yooyu leen rey seen biir yaa ngi daw ñu ngi xiif ah lekkuñu defuñu dara sonn nañ bay bëgg a dee est ce que la ñu ngi feebar sonn médecins yi dañoo faj a faj ba sonn comprimé yeeg yaa ngi may dégg ah, siro yeeg lu nekk ñu leen jox am na ñoo xam ne sax ci basaan yi tëdd man information laa yor lu may wax lu ne dafa may leer man ci source yu leer laay tegu. non euh, euh, Fadam soo waxee loolu est euh, xaw ma kii <laughs> sëñ Ba de soo waxee loolu est nekkul doo yaa ngi tooñ parce que lu la leer ne si sëñ loolu la parce que am nañ suñu benn naataango boo xamante ne calki calki mu la jóg. te mu nekk ministère te muy naik minister euh, mu nekk ministère jox jox nañu. boo may wax bu ñu wax ay calki boo nga nee calki bu Lat job rek kooku moom. Euh, li naan euh, ku la abal ay bëtam fu ko neex ngay xool lu mu wax ay calki bu Lat Diop. non non mais mais dafa calki bu Sénégal wala sëñ Bada Kéwàne maraat yi nga xam ne la yamale. Mm-hmm. amul kumba am ndey amul kumba kumba amul ndey yaa est-ce que yaa may dégg. non non non bi am na ñoo suba duñ seetaani mbay. ndax amuñu billet non non non non non. marché yi ñu ngi seen biir kër toog amuñu billet duñ seetaan mais wax ko li ko ca naka nit naka nga ko mën a jëlee yóbbu ko dëkk dëkk jële ko Sénégal ba Côte d'Ivoire mënoo ko sax jox billet. joxoo ko fu mu tëdd ñuy tëdd ci ay bassan koo xam ne sa kër fii daawoo tëdd ci bassan da ngay tëdd ci ventilateur wala clim néeg boo xam ne amul dara. mais ñooñu yaakaaroo ne ñi ñi nga xam ne SBI ñu ngi tumuranke foofu foofu ca Côte d'Ivoire sànq li ñu waxtaan ak euh, calki dafa mel ni ñoom loolu ñoo ko teg seen bopp. Mm-hmm. non parce que dégg naa sax yoonu suuf lañ jaar non attendez ne non attendez non attendez ko seen bopp parce que ñoom ay doomu réew mi nan. xam ne quota bu génnee. loolu pour doomu réew mi la pour les douzième gaynde la. waaw douzième dañ jël sacrifier seen vie yëpp. pour le Sénégal ñoom ñooy supporter ñooy neexal ñooy fecc wàcc seen bopp bay bëgg dee. Mm-hmm. te ñooñu ñëpp am nañ ay famille. Mm-hmm. yaa may dégg kon ñooñu ñëpp dañ leen war respecté teg ci bonne condition mbirum xaalis yooyu ngay tudd nga man du ma ko tudd parce que sama yoon nekk loolu mbirum état la. Ah. ñoom bu ñu luubalee xaalis bu ñu ko luubal man sama yoon dem Côte d'Ivoire comme nee na moom damay gis gars yi di ko tàgg naan waaw moom nitu social la. day def lu baax day mm-hmm. gisuñu loolu. bu ko xam ne day lu baax day def lu nangam yow nga génn ba ba ba Côte d'Ivoire mënoo dimbale say nit te Seydina Omar wax na wax ju solo. nee na sa nit boo ko bëggee xam Seydina Omar bu karab Seydina Omar wax na ko nee na sa nit boo ko bëggee xam ndax dafa am ñaar ñu ma a jotee am kuy témoin mu ñuy témoin mu ne ko loo xamal kii ndax mës ngeen a séq xaalis mu ne ko déedéet ndax mës ngeen ànd tukki mu ne ndax mës ngeen a séq jigéen mu ne ko déedéet mu ne ko kon xamuloo ko dara mm-hmm. mbay mm-hmm. nit ki nga àndal tukki mm-hmm. kooku moo la mën a wax ci moom parce que tukki bu génnee rek génn bu ko saam jikko day commencé feeñ jikko yu bari kon labjo buñ koy wax ci lom social ak lom nangam mm. fële lako wara war non non parce que ah. tel ki na amul mm-hmm. accès ñooñu amuñu accès si si si si si si labjo parce que labjo bu ko na leen lolu nga moy lolu moy problème bi léegi lolu moy problème lolu moy problème lolu moy problème yenn autorité gis nga nit ñi dañoo war a wàcc seen bopp da ngay dem France wala nga dem bitim dem fenn wala nga dem ci réewu ñag yi ay Côte d'Ivoire yoy sen ministre ni nga leen rombé mais non yamay may dégg mais fi le fait que yow doon nga ben affaire te nit ñi la ko fal nit mënu mënu mënu la gis mënu la ki ngay neub wut. mais man dama jàpp problem nafam? jàppoon. waaw problème bi bu problème dafa am ñun fee xare moo fa yóbbu xare badar mm-hmm. xare badar mënuñu faa yóbbu man ma ñëw taxaw jàkkaarloog ñi ma war a mm-hmm. bada bokk ci bi mm-hmm. ma dee bada ne ko damaa bëgg nga dimbali ma. di yàq deru Sénégal. mais man su ma demee ne xare badar moo ma damay xeexal sama réew. xeexal sama bopp. mais sëñ Bada mënumaa dem ba Côte d'Ivoire. compétition yóbbu ñu fa. Mm-hmm. may wër ay autorité wala may wër ay ñoo xam ne dañ maa bëgg dimbali. engrais ñoom ñoom ñi ngay wax nii non defal naa man man la expliqué yi. waaw euh, li naan euh, bëri ko bu feesee du yëngatu. waaw gis nga nit bu añee ba su reer ba màndi reg du dem fenn. mais dañoo sonn. te bu ñu sonnee jàpp nañ ki leen war a dimbale mooy ki nga xamante ne moo fa représenté Sénégalais yi. mooy kilifa gi moom nañ fa teg. mais bu dee kilifa gi day daw responsabilité am. mais joxe na. loolu non non non lu mu joxe. joxe na vingt millions. dama ne sànq ba ñu wax ak Calvi. dama ne kan moo joxe président Macky hmm. joxe loolu. waaw déglu leen bu leen jaawale affaire yi. est-ce que dañu woo. mais mais douzième gaynde douzième gaynde dafa am bureau. dama expliqué dama ne dama ne man ci source yu leer laay tegu problème bi à nekk subaa ji des incha allah nan jox bi so suba booy yëpp bi te nan leen génn jox lekk ay lekk yu yi lekk mbedd yi nii nan wax dëgg gis man caméra nii. mais ku demal sa bopp tamit. Ah, euh, ku demal sa bopp waxuma ñi demal seen bopp bopp taxumaa wax ñoom la ñi nga xam non non non man ñooñu taxumaa wax de ñooñu taxumaa wax. si ma tax a hmm. xam ne dañuy dañuy subventionné état bi ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp hmm. gis nga état li nga xam ne équipe nationale amul opposition amul pouvoir ñu ñëpp a ko bokk. amul fii laa far amul fee nga far amul ku far fii rek yow na ni jàppale wala yow na yóbbu ku farul fii loolu yóbbu loolu man da nga nekk si influenceur boo xamante wala. bu gën demoo est-ce que du loolu moo la. non non man yittewul Fadam man Fadam mi nga fa. man. influenceur la bu leen tudd sax dama tudd parce que man ak ñoom duñ benn. man du daw ci ginnaaw kenn man ku ma xam-xam ne topp ma kenn waa ma dinaa ko du ma génn du ma gis ci yenn affaire yi moo tax bul bu leen tudd di ma tudd quoi comprendre nga man su ma bëggee dem Côte d'Ivoire damay paas fii sama billet demal sama bopp dem seetaani marché bi te weesuwul heure ma neexee mën naa paas fii dem seetaani ñëw toog jàpp sama njàmbur mais la may xeexal ñi nga xam te ni amuñu doole ay néew lu doole nan te yàgg hmm. xeexal équipe nationale rawatina douzième gaynde yi nañ leen mettre en bonne condition bu ko defee au suñu joueurs seen esprit mën a tranquille suñu salar neex gagné Côte d'Ivoire parce que Côte d'Ivoire ñu mën est-ce que yaa ngi hôtel bi mu leen jox dafa am sax piscine non dégg ma loolu ñoom sa ñoo li may xeex li may xeex maa xam dama ne ñëpp merci beaucoup. du ñëpp mais dama ne kumba am ndey kumba amul ndey d'accord bañu ma waaw foofu laa wax dama ne ñëpp war a

neexal bëccëgu gaa yi neexal kaanu gaa yi loolu wàññiwu na dara. mais def na ko. non ko man ay sources yu leer laa lay wax. mais c'est-à-dire. barke alxuraanu karim lay wax. man douzième gaynde ale Kaza lébu gi. non dama lay expliquer man xawma Lat Diop ma koo xam. waaw xawma ko ànd ak moom. ah nga koo xam nag. soxla nga koo ni ngay ni ngay man du ma ànd ak non mbay mbay. man bugguma non non man bugguma nit ngis man du ma ànd ak kuy ngistal du ma ànd ak ku dul liggéey man su ma ànd damay ànd ak liggéeykat pour Lat Diop liggéey kan la. non non man su may ànd noonu dama lay wax non. Lat Diop mu ngi liggéey. wax. gis nga liggéey moo tax mu yëkkati. mu débloqué benn fond. dimbale ay yow tudd sànq ba tey l'homme social. non non musuma non dama ñu ah. ah. ngi ko ah. dem ba foofu saa waay am na ci loo xam ne lu bëri mënuñoo ko wax sax gars yi de yéen tamit ay journaliste ngeen mais daleen wax dëgg wala leen dëgg gi bu ko defee gars yi suñu jour yi condition mais li dafa ñaaw c'est honte ay billet yow billet rek billet mënoo ko joxe billet mais defal naa parce que calki euh, nee na billet dafa am problème même calki sànq ci biir waxam mhm. dafa ne moom mhm. moo yor billet aller Casa mhm. moo yor billet billet douzième gaynde moo yor billet lébu gi ak tëggkat yu njóobu yu dëkk géejawaay kon c'est-à-dire calki si biir waxam nee na la carrément douzième gaynde hôtel bi ñu leen jox dafa am piscine te dañuy lekk dañuy naan ale Casa yow xanaa yow déggoo li ma la man la gisoo gis nañ sénap yeeg vidéo yi waaw ñun loolu ñu metti moo tax ñuy wax kumba am ndey léegi nag ñi génn di kaas na ñoom amuñ fuñ tëdd ñun jël favorisé mais yéen lañ ko kon kon yow fa la moo man loolu wala cel ah, ki tamit non parce que cel ki fu nekk nii non man ko yow ma koo xam mais dama lay wax benn affaire barke alxuraanu karim gis nga lii ñuy def nii lii ñuy def nii mën naa sax jouer ci bopp joueur yi ba nga xamante ni boo moytul suba mën nañoo ñàkk marché hmm? bi. wallahi wa taala non si parce que joueur yi tamit ay nit nañ quoi. joueur yi dañu war am conscience bu tranquille xam ne seen i ñëw lan supporters yi dugg mais ay ñëw mënoo dem da ngay fooy fooy courant coupé amul ay yoo di la mais léegi foofu loolu foofu la de nga xiif biir Côte d'Ivoire sonn bëgg a dee problème ma sukkuroog bàyyi ba ñëw fii parce que fii dafa sore fii dafa nangam mais loolu wax la te ñoom bu ñu bëggee dem seetaan dem seetaan toog ci place yu baax yi eh mbay loolu duñ ko nangu ah dañ waxante dëgg moo tax yëf yi waroon ko seetaat man ci lii lii rek laa wax lii moom metti lii laa wax nañ ko seetaat ah mbay. merci. merci beaucoup sëñ Bada.